moo tax mu ne qul waxal yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi ne yaa ahlal kitaab yee yéen yahood ak nasaraan astum déet yéen ala shay'in ngeen di nekk ci dara lu kenn konte xataa tuqimoo bata ngeen jëfee a tawreet a tawreet wal injiil ak linjiil wama ak téere ba nga xam ne unsila wàcceef na ko ilaykum jëm ci yéen min rabbikum bàyyi ko seen borom ngeen jëfee li yàlla wàccee mu bàyyi ko ci seen borom te mooy alquran ak gëm yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yasidanna wallaahi dana dolli kathiran mbëri minhum ca ñoom maa la nga xam ne unsila wàcceef na ko ilaykum jëm ci yow ko rabbikum bàyyi ko sa borom dana dolli leen tuxyaanan ak mbewte wa kufran ak ak waaye falaa tasa bul jàq alal qawmi waral nit ñi kaafiri ñi di way weddi bu ñu la gëmut de inna lisi daal ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wala lisi ñi nga xam ne haadoo wax nañ ne ñoom yahud lañ wa saabiuuna ak kuréel bi nga xam ne dafa xàccee ca yahud yi di jaamu ay biddiw wala ñuy jaamu ay malaaka wa nasaara ak ñi nga xam ne dañoo wax ne ñoom tamit nasaraan lañ man amana képp koo xam ne gëm na ci ñoom billaahi ci yàlla wala yoom bis àxir mujj ba wa mu jëf saalihan jëf ju baax falaa xawfun déet ak ragal alim nekk ci ñoom ci àdduna wala hum déet ñoom tamit yasun na ñuy jàq ëllëg ci àllaaxira kon yàllaa ngi dànkaafu ahlu kitaab mu yëhoot ak nasaraan yàllaa ngi leen xamal ne nekku leen ci dara lu kenn konte lu dul ngeen jëfe tawreet tawreet nag mënu leen koo jëfee mukk te gëmu leen sayduna muhammad mu yéen waa nasaraan yi mënu leen a jëfee lin ji lu ngeen gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu yàlla isa béggaloon na leen ki ñëw ak yonentu bi ci yaati min ba'di ismuhu waaye nag li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci ñoom muy gëm yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama alquran ñëw di ko firndeel ak mbewte ak ak kéeféer rek weddi la leen di dolli ñi wax na yahood lañ ñi ne nasaraan lañ ak ñi xàccee ci diine yahood ku ca gëm yàlla gëm bis bu mujj ba di ko jëfal doo xam benn problème fii ci àdduna doo xam tamit benn problème ëllëg ci àllaaxira saabiwu nay ab kuréel lañ bu doon jaamu ay biddiw ñenn ngeen ab kuréel lañ buy jaamu malaaka kon yahood ak nasaraan daal seen diine jañ nekkoon valabaloon na ci jamono yonentu yàlla Muusa ci jamono yonentu yàlla Isa waaye bi yàlla yónnee Seydunaa Muhammad ba bay àdduna bi tukki benn diine dong moom la yàlla valable mooy lislaam ku ca nekk-nekk ca dara ku ca ne newoo ci dara wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa fi l min alxaasirin inna diina inda allahi al loolu yàlla wax na ko kon lislaam daal mooy diina joo xam ne ku ca ne nekk nga ci dara ku ca ne newoo ci dara su ko defee nag inna alladina amanu walladina haadu mubtada la wa saabiuuna yi def ko caa ataf wa nasaara am nañu jàpp ne dañ koo badal ca mubtada ma waaye am nañu jàpp ne maxtuuf la dañ ko caa ataf rek waaye lu ca mën a am ku ca gëm yàlla ci ñoom gëm bis bu mujj ba rek doo am tiitaange fii ci àdduna bu ëllëgee tamit doo xam tiitaange ëllëg ci àllaaxira aaya ji tegu ci yàlla ngi ciy wax kóllëre gim jàppoon ak banu Israayil ci war a gëm yàlla gëm yonantu yi waaye mu ne man yàlla saa yu ma yónnee ay yonantu ci ñoom ñi indil leen lu wuuteeg la seen bànneex bëgg rek ñi weddi yonantu ba xam na ki ñoo xam ne sax dañ leen a far rey ñañ rey Zakariya ak Yaxya ca la bokk ña ñu weddi Shahyau ak Armiyaawu ca lañ bokk bañ leen weddee nag def jëf ju bon ca ñoom ñu tuub yàlla kat lu sa loxo bi taq-taq boo ko tàllalee mu jël ko mu nangu seen ak tuub ñu toog fanweeri xat delluwaat ci seen ak caay-caay yàlla yónni yaxya yónni sakariya ñi mujj ray leen yarab yàlla nag doora dal ci seen kaw kon yàlla ku baax la boo ko tooñee lu tooñee rëy rëy rëy boo ko tàllalee sa loxo mu jël ko waaye bu ko xasee jël nag boo delloowaatee ca tooñ ya rekk bu yar ba ñëwaatee dootut mooyati loolu nag moom lay wax si ci kóllëre googu nga xam ne jàppante woon na ko ak ñoom ci aayaat yi ma bëgg laa firil moo tax mu ne laqad axas naa wallaay sa dëgg-dëgg jàppoon nañ misaaqa bani israila ku léeg bani gi kóllërante woon ak ñoom ci gëm yàlla ak gëm yonantu yi wa arsal naa ñu yónni ilayhim jëm ca ñoom yónni woon nañ jëm ca ñoom rusulan ay ndaw waaye kullama jaahum saa yoo xam ne dikkal na leen rasulu ndaw tukkee ko ca ndaw yooya bi maa laa tahwaa mu ànd ak loo xam ne sopput koo anfusuhum seen bakkan ya ci dëgg su ko defee ñi weddi fariqan kuréel ca ndaw ya kazaboo weddi nañ ko wa fariqan kuréel ca ndaw ya na sax nañ di leen rey muy Zakariya ak Yaxya su ko defee tamit waxasi boo njortoon nañ àllaa takku na ba ñàkk a nekk fitnatun benn fitna ah, maanaam ca ray gañ ray yonantu yi ak weddi gañ leen weddi fa amoo ñi tëx walis dégg ko defee fa amoo ñi tëx walis ñi gis dëgg wasamoo ñi ñu maanaam fa amoo ñi gumba si ñi gis dëgg wasamoo ñi tëx walis ñi dégg dëgg dégg ak nangu su ma taaba topp nangu na tuub laahu yàlla alayhim ci am bañ tuubee su ma am moo topp ñu gumbalaat wasamoo ñi tëx yoonu ñaareel wa diggante bi fanweeri xat la ñu tëx ñu gumba mu badal ke kasirun ñu bari laa minhum ca ñoom yàlla basirun aji xam la bi maa ñu xam ne ñu ngi koy def naa leen ko fay de loolu tamit dafay junji distance bi ñu weddee yonentu yàlla armiya waaye nag bañ ko weddee weddi shaaya ñu mujj tuub sellal tuub ga lool yàlla nangul leen ko ci mbaaxam ak yërmandeem gannaaw si gi nag bañ dundee lu mat fanweeri xat ñu delluwaat ke seen caay-caay ga di yàq suuf moom la alquran la tufsidanna fil ardi maratayni la tufsidunna fil ardi maratayni su ko defee yoon wu njëkk wa nag mooy ba ñu weddee yonantu ya yoonu ñaari la mooy bi ñu rayee yonantu ya di sa kër yaag yaxyaa ñu foogoone nag loola kat dara du leen ca fekk waaye nag bañ defee loola nag yarab yàlla ba mujj na dal ci seen kaw mooy mbugal leen moo tax kon daal yàlla ku baax ku bari yërmandi la loo ko tooñ lu tooñ rëy rëy rëy rek soo ko jéggaloo moom mu jéggal la waaye bu la jéggalee nag nga delluwaat ci tooñam ya yarba bu ñëwee dootut mën a moyeti kon loolu lu jara bàyyi xel la te loolu moo mooy li leen dal yàlla xiirtal buxtu nasar ke ñoom mu rey leen jàpp leen ñi ay jaam ndax yàlla moom bala boolee ku baax nga bañ koo nangul mu indil la ku bon te doo ko sañ a nangul mu teg la lu gën a métti fuuf la la kee tegoon dig la ca ay duma te doo ko mën a mën a moytu kon nag yàlla ko xam fulla la su la wooyee ci teraanga pour teral la nga bañ mu dugal la ci mbugal te doo ci mën a génn ti safara ak aljaana loolu dong moo ko waral aljaana du dara lu dul kër la gu yàlla tabax muy kër ak nganale mu ne na ñëpp ñëw ma teral leen ñu dëgër bopp na ñun ñëwuñu mu ne kon naa tabax safara ñu bëgg a ñëw ma mbugal leen kon nag loolu mooy dayoob tabaarakallaahu tabe ci yàlla kon nag ñoom ba ñu demee weddi Shayaawoog Armiyaaw hitti woon nañ sax dem nañ sax ba mujj rey leen hee waaye nag yàlla xirtal ci seen kaw buxtu nasar mu boole leen ñoom ñëpp def la ñi mu jël leen ay prisonnier ràppal baytil muqaddas ñu mujj nekk ci dayoob toroxtaane ak doxadi bañ tuubee nag ah benn buur ci buur buuri farisiya moom tamit ñëw ci ñoom ba mu ñëwee rey buxtu nasar delloo leen ci seen dëkk booba ñu nekkoon muy xutsu ba ñu bëree nag ba mu jéggi dayoo diire bi fanweeri xat su ma amoo wasam mu ñu bokk maanaam gumba ak ak tëx yàlla ba rayaat yonentu yàlla Sakariyaa ray ko ñu ray ko ray Yaxya yàlla tamit xiirtal leen xalak leen tabaarakallaahu ñoom ñooñu ñëpp moo tax mu ne la tufsiduna fil ardi marratayni loolu lañ namm ca loola su ko defee kon nag eh, loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax sama borom ne la laqad naa wallaay sa dëgg-dëgg jàppoon nañ misaaqa bani israila kóolu rek banu israila gi ci gëm yàllaa gëm yonantu yi wa arsalnaa yónni woon nañ ilayhim jëm ci ñoom rusulan ay ndaw kullama jaawum saa yoo xam ne dikkal na leen rasulu ndaw bàyyeekoo ca ndaw yooya bi ma laa tahwa ànd ak loo xam ne sopput ko anfusuhum seen bakkan yi ci dëgg fariqan kuréel ca ndaw yooya kazabo weddi nañ ko wa fariqan mbir moomu kuréel ca ndaw ya na mbir moomu sax nañ di leen rey ñaari jum jumla yi xaal la wa xasiboo njortoon nañ ne allah na ba ñàkk a nekk fitnatun benn fitna ndax nakira bu ñëwee ci siyaaga naf yu dafay matale fa ammoo ñi gumba walis ñi gis dëgg wa woo ñu tëx walis ñiy dégg dëgg dégg ak nangu su ma taaba topp nangu na tuub gannaaw bañ tuubee laaw yàlla àlleem ci ñoom su ma moo topp ñu gumbaat eh, walis ñi gis dëgg wa sammoo ñi tëx walis ñi ñi ñi maanaam walis ñiy dégg dëgg ñu ñu tax ak ñu gumba kasirun ñu bari laa wax minum ci ñoom badal la nday bañ nga dugal ko ci akkaloo nii baraaxiis wallahu yàlla basirun aji xam la du ne xam ne ñu ngi ko dana leen ko fay de laqad kafara wallaay sa dëgg-dëgg weddina la si nañ nga xam ne xaaloo wax nañ ne inna laa naka yàlla huwa moom almasihu mooy masih ibnu maryama mooy maryama wa qaala wax na moom almasihu masih di leen weddina yaa bani israil bani israil yaabudu na ngeen wétal laa yàlla rabbi mi borom sama wa bar rabbukum te seen borom inna woo naka lay mbir tey mbir man yushrik képp ku bokkaale bi laay ci yàlla ci jaamu bokkaale bokkaale ko leneen faqad harrama dana xaraamal na laahu yàlla te mooy xeñ na moom yàlla alayhi wala ko gën a taxal jana wa ma waaw tàpp waayam annaaru mooy safara wa maa lil xaalimina déd ñeexal tooñkat yi min ansaarin ci kenn ku leen di dimbale du ñu kenn ku leen dimbale laqad kafara walaay sa dëgg-dëgg wéet na si ñi nga xam ne xaaloo wax nañu inna laa naka yàlla saalisu salaasatin mooy ak ñetteeli yàlla ya yàlla yàlla la isa yàlla la yaayam yàlla la kuréel la ci nasaraan yi yàlla ne wa maa min ilaahi amul jenn yàlla ilaa ilaa ilaa ilaa ndere yàlla waaye du jey jenn rek wa in lam yantahu su fekkee daytaluñ amma yaqulu si nga xam ne ñu ngi koy wax ci ñetteelu yàlla yi bañ koo wéetal la yamassanna dana jotal sa ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ lu leen minhum ca ñoom lu leen lu leen jot azabun mbugal alim na may bërëm ak méttital afala yatuubuna taa ñu tuub ilaa jëm ci yàlla wa yastaxfiruuna ñu jéggalu ko te xam ne wallaahu yàlla xafarun jéggalaa ko la ñeel képp ku tuub rahimun borom yërmën la ci képp ko ci képp koo xam ne ba gëm na ko mal masihu deel masih ibnu mariama kay doo mariam illa rasulun ab yonantu qad xalat wooy na min qablihi ji li ko jiitu woon rusulu ay yonantu yu ko jiitoon ñu bari yonantu yàlla noox ak ibrahima ak ñi ca bokk wa ummuhu yaayam siddiqatun dëggalaa kon la kaanaan nekkoon na ñoom ñaar ya ku lan daan lekk taama ñam te ku lekk ñam da nga soxla wanag yàlla lu muy defee wanag unzur xoolal xoolal kéemaan yow yonent kay kayfa nu bay naka la ñu biralee lahum ñeel leen aayaati aaya yi di tegtale sama kenn su ma unzur topp nga xool xoolal kéemaan année yu fakkoon naka la leen di wëlbateef walis dëgg ji ànd ak la yu leer nañ yi xool wax leen yow yonent bi ne a ataabuduuna ndax da ngeen di jaamu min doon laay ku dul yàlla amma yéen a ngi jaamu maa laa yem li ko xam ne mënta jañal làkkum a leen daran lor wala nafaan mënul bu jël njëriñ ñeexal leen wallaahu yàlla woo moom dong samihu mooy déggaa kon seen wax yëpp alalimu mooy xamaa kon seen jëf yëpp kon wax jàngoog aayaat yooyu yàlla mbëmbëstal ci mooy weddi gi nasaan yi weddi nga xam ne seen kufru gi dafa jëm ci wàllu uluhiya ñoom dañoo gëm ne Isaa yàlla la yàlla yàlla la si yaayam yàlla la xam naa ko nde yàlla ya bëri na kuréel boobu nag ñoom la ngi tuddee yaqubiyatu benn kuréel la ci nasaraan yi ndax yàlla dafa dugg ci aayaat yi laqad kafara di ci dugg bu di ci tudd mbon mbon yi nasaraan yi gannaaw bi mu tuddee mbon mboni yahood yi bokk na ci mbon mbon yi nasaraan yi bokkaale yàlla e, ñooña nag seen bokkaale ga boo ko seetee dañ caa def ay kuréel xam na ci kuréel boo xam ne dañoo gëm ñett ñetti yàlla lañ gëm waaye ba tey tamit ittihaad lañ woote rek dañoo gëm ne daal maanaam baay ji doom ji rooxu gu sell gi liñ namm ci baay ji mooy jëmmi yàlla ja liñ namm ca doom ja mooy melowa tamay wax ja lañ namm ca rooxu gu sell ga mooy dund ga yëpp nag ala kulli haal ak riir dong la noom nag ñu jàpp ne melow wax ja dafa jaxasoo ci jëmm ja comme ni jaxasook ndox ci soow moo tax ñuy wax ne baay ja yàlla la doom ja yàlla la rooxu gu sell ga yàlla la waaye ànd lii lépp nag dañ leen a toggale muy jenn yàlla loolu réer la moo tax kon nasaraani seen pas-pas ak ñetteeli yàlla yi ñeenti kuréel lañ ci def am na ci kuréel goo xam ne dañuy wax maanaam ci kumu ci ñetti kuréel yi dafay wax ne jëmmi Isa ja jëmmi Maryama ja kumu ci yàlla la lii benn kuréel la ci seen kuréel ya am kuréel goo xam ne dañoo gëm ne ñett la al wujud ak al mook xayaat lépp lañ def muy ñetti melo yooya ni Iisaa moom yàlla la moom mi nga xam ne mooy doom ja beneen kuréel ba ne yàlla de dañ koo boole ci jëmm ak ñaari melo jëmm ja mooy jëmmi yàlla ja moom la tuddee baay ja melo mooy wax ja moom la tuddee doom ja weneen melo wa la tuddee dund ga moom la tuddee ruuxul qudsi ku mu ci yàlla la waaye yëpp ak réer rekk la ñii ngeen tuddee na yaqubiya ñii ñu tuddee nasuriya ndax kat kàccoor bu mag bu ñu tuddee boolis moo bàyyeekoon ci diine yahud ñëw dugg ci diine nasaraan waaye fekk yàq rek ba mu demee bañ fañ ma gisee yonent yàlla Isa mu pendre fa boppam hooteel nag yii nii booba nag ñaari taalibeem la ànd ak yaquba ak naasur ñooñ nag kenn ku ci nekk waxam ja ni nga ko déggee nga dem nag commentaire ko mbooloo topp la ca moo tax nga di yaqubiyati yaqubiyatu naasoriyatu yu mel noona yàlla ne lii ñi continuer di ko wax buñ ko daytalut danaa leen jotale mbugal moo xam ne mu metti métti la jotal na leen ko toroxal na leen ci àdduna boo léegi mu dugal safara li wér daal masiix yonantu dong la comme ni yonantu ya ko jiitu woon yaayam dëgg laa kon la maqaamaam mooy siddiqiyatu mu wax nag kenn ku ne may gi nga xam kii yaayam si di siddiqiitu la kii yonantu la doomam gi di mari abdi di isa yonantu la mu wax nag ñaari melo yañ bokk muy kaanaa yaakulan taama ñoom ñaari ñëpp dañoo bokk di lekk ñam kuy lekk ñam da nga soxla dem wanag kaawteef ci yàlla ji ñuy askane yu suufee yooya yoo tax yonantu bi yàlla ne ko xoolal xool kéemaan kaawteef yi teg la sama kenn ànd ak loolu lépp ñoom mu ngi leen di dumoo yu walis loola noona walis maanaam ànd ak barayin yoo xam ne barahinul qaatia la waaye ñoom mënuñ koo gis yàlla ne qul waxal yow yonantu bi yaa ahlal kitaab hee yéen yahuut nasaraan laa taxloo bu leen jéggi dayoo fii diinikum seen diina ji jéggi day goo xam ne xayral xaqi du hut dëgg te mooy ngeen xeeg teg yonantu yàlla Iisaa fu mu heggut yéen nasaraan yi yéen yahuut yi tamit bu leen teg Usayru fu mu heggut waaye tamit yéen yéen yahood yi bu leen teg yonentu yàlla Isa fu mu paase yéen nasaraan yi bu leen teg yonentu yàlla Muusa Usayru foo xam ne paase ko lu yàq lépp nag mooy sopp ba teg nit ki fu mu heggut mbaa nga bañ ba teg nit ki fu mu paase lu fi yàqu ñaari rek moo ko yàq maam xalifa dafa daan wax ne olof mënta bëgg su bëggee fen su bañee fen su bëggee yokkal la loo defut su la bañee wàññi la loo def loolu nag moo dal yowoot yeeg nasaraan yi yàlla ne bu leen jéggi dayoo ci seen diine jéggi dayoo goo xam ne teguwut ci dëgg yaa ahlal kitaab yee yéen yahoot nasaraan laa taxloo bu leen jéggi dayoo fii diinikum ci seen diine ji jéggi dayoo goo xam ne xayral xaq duhut dëgg bu leen topp ahwaa qawmin bànneexaw nit xad dalloo nit ñooy xamee sànko nañ min xablu ci njëkk wa addaloo sànk nañ kasiran ñu bari ci nit ñi wa dalloo sànko nañ an sawaayi sabili wala si yoonu dëgg lu ay na rëbbeef na la si na ñoo xam ne kafaroo wéet nañ bani israil ci bani israil rëbbeef na leen ala lisaani daawuda ci doon yonent yàlla daawuda mu ñaanal leen yàlla ñu soppi leen i golo ca xuru ñu tuddee aylatu rëbbeef na leen tali waa isa ibnu mariama isa ibnu ma ci làmmeñ yonent yàlla isa ibnu mariama mu ñaanal leen ñu soppi leen i mbaam xuux muy asxaabul maida daalika rëbb googa bi maa asaw sababu seen ak mooy boo ko taawilee masdar wa ka nekkoon nañ yaxtu noon di jalgati kaanoon nekkoon tamit laa yatanaahoona duñ tere mooy duñ tere xante ñenn ña duñ tere ñenn ñay def lu bon xan munkarin ci jëf ju bon faaluhu loolu def nañ ko lëbbi sa bon na maa kaanoo la nga xam ne nekkoon nañ maa jëf joo xam ne kaan nekkoon nañ yafaalu na di ko def ñu xasaf ma fa ma moo tax mu ne yow yàlla nekk kataraa da nga gis yow bi kasiran ñu bëri minhum yatawallaw na ñu ngay jot lante ñu ngay yatawallaw ñu ngay jokkale si nga xam ne kafaroo wét nañ ci waa màkka ya su ko defee tamit jot lante ak mbañal rek la bi sa bon na maa xaddamat la nga xam jiite na ko loolu ñu an fusum seen bakkan ci mooy ci noonoo la an saqita moo waral loolu waral ba sànji laahu yàlla xaleem ci ñoom wa waxum ñoom tamit xaal doona woy béel lañ fil asaabi ca mbugalam yàlla ma walaw kaanoo buñ nekkoon yow mi noonu di gëm billaahi ci yàlla wan nabi ak yonantu bi wa maa ak la nga xam ne unsila wàcceef na ko illee jëm ci yonantu bi mattaxasuhum duñ jàpp xéeféer yi màkka ya awliya ay xarit walakin na li fi nekk seen lu bëri minum ci ñoom asku na ay kàccoor lañ rek loolu mooy li gën a wér ku gëm yàlla du xol ci ku gëmut yàlla mbool mooy wax ja kenn ku ne ka nga xàndak rek ngay xàndak loola kon lislaam bañ na ko tere na ko nañ gëm yàlla jël julli ñi nekk suñuy mbok ñi xaritoog moom xaritoog yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku ko gëm ku ko weddi nañ ko bañ te xam na yàlla doy na ak yonentu bi ak i jullit ñi ku leen xam wéetuloo laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axiri yuwaadduuna man xaadallaaha wa rasulahu walaw kaana abaahum walaw kaanu abaahum aw abnaahum loolu mooy dëgg waaye nag jullit laa sa xol bi am xiis ci sa moromam jullit ñi sa xol bi am ak cofeel ki ñu duwut jullit doo tuus lay tekki ashiddaau alal kuffaar ruhamaau baynahum loola mooy melokaanum jullit safaan ba nag moo fi nekk ashiddaau alal mu'miniin ruhamaau alal kaafiriina ndax naka fu mu moom la jullit ñu bari ju maanaam melokaanoo boo gisee tamit loo xam ne des na kafan bani Israa'iil la seen Daawuda xisa la yonentu yàlla daawuda nitam ña di yahood ya nekkoon ak moom ñu yónni woon ko ca moom dañoo ñëwoon laaj daawuda ne ko yàlla moom kañ la commencé bind àdduna bi daawuda na ne leen dimanche kañ la pare ñu ne ko àjjuma samedi ñu ne defut dara ñu ne kon nax nu abnaawullaahi wa waaye baawoo dañoom ay mol lañu woon te yàlla saa yu nammee ak aw xeet dafa leen di tere dara ba pare di ko ci seeni bët ba duñ ko mën a moytu bis yëpp jën du xam samedi rek jën ya bëri lool ca dëkk ba bay tuuru dëkk ba def ñetti xaaj benn xaaj ba gën a bon gas ay pax jën ya dugg ca samdi bu dimanche ñi rëbbu leen xaaj ba gën a baax tere leen ko ñu ne ak ah kay dañoo tere di rëbbu sa samedi jën waaye terewut ñu fexeel jën yi fexeel samedi jën fexeel jën yi samedi kenn terewut ñu ko waaye jën yoo gas kay mu dugg ci kaaw ci pax ca bisab samedi ba génnut ko ba dimaas nga jël ko keroog samedi nga ko rëbb ñooña nag bañ a tere ñi tàyyi ñi gàddaay tuxu bàyyi leen fa beneen xaaj ba na ñun de terewuñu ñun de gàddaayuñ kuy rëbb ku ne soo amee mëccaat boo ñu mayee ñi lekk yàlla nag ba mu wàccee mbugal ma soppi ña doon rëbbu ay golo ki mbaam xuux ña leen tere woon gàddaay mu musal leen ña noppi woon mu noppi ca ñoom noppi ga nag la gën a wér dañ ne mbugal rek la ndax fu ñuy defee lu bon nga noppi ca yaag ñoom yéen a yem moo tax yàlla ne kama laxan naa asxaaba sabti ñooñu la ca namu yonentu yàlla ay saa timit soppi woon na ñu tam ñu ay mbaam xuxi ak i ay golo danaa ca ñëw ca kanam bañ ko ne ko ndax jaral nga sa borom mu wàccee ñu maay de tamit na sama mu ne ah bu leen laaj miraakal ku mos a laaj miracle ab yonantu boo xamee bu buñ ko weddee mu xalak leen yàlla xalak leen ba miracle ba ñëwee ñu weddi ko yàlla soppee leen golo ak ay mbaam xuux danaa ci ñëw ca kanam balaa saar jeex da si ca su ko defee nag golo yooya ñetti fan lañu xam ak mbaam xuux dee waaye nag tekkiwu ne golo yooya ñoo meññi nit ñu ñuul ñi li ko noonu da nga gis golo gu silwiise ba soppeeku nit wala nga gis nit ku salte wàccee boppam ba soppeeku golo comme nag nit mos ta nekk golo su boobaa kon golo tamit mën ta fexe ba nekk nit kon day tekki ne kenn ku ne bàyyi ko ci sa morom rek lay tekki ci lu man mantiq loolu lañ ci mën a déggee su ko defee kon nag li occidentaux yi di wax di xëm di ngi ñuul naan ci golo lañu bàyyi ko wax ju bon la du dëgg ñoom kay wax dëgg yàlla sax ñoo gën a niru golo boo xoolee seen bakkan yaag seen bind ba waaye nit ku ñuul kay sori na golo ci xanam yëpp nag dëgg dëgg nag dañoo xeeb waaye loolu ñuy wax dara amu ci su ko defee kon nag moo tax waaja ba bam ba merloo sëriñ ba sëriñ ba ko naa la mu ne ko ah sëriñ ni yi bëree te yàq rek lañ man comme man nga maa soppi golo ngaa jël ci golo yi nga soppi ci nit yokku nit ñi moo gën nga may soppeeti golo di golo yi rek yàq gi gën a bëri loolu sëriñ eh, rafetut di sëriñ ba gag xam ne wax na ko dëgg kon waxi caaxaan rek la nag kon xisa boobu loolu lay junji la tajidanna ashada naasi adaawatan xisa la sababu nusool bi yàllaay xamal yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñetti dëkkandoor nga xam ñaar ña dañ laa bañ kenn ka moom am nag cofeel ci yow am ko ci sa nit ñi ñi la gën a bañ gën a bañ say taalibe mooy yahood yi ak musrikuuna yi ñi nga xam ne nag ñoo gën a jege cofeel ci yow ak jullit ñi ñooy nasaraan yi te loolu lépp nag weddeeg nasaraan yi moo gën a tar weddeeg yahood yi ndax weddeeg nasaraan yi dafa jëm ci wàllu uluhiya ñoom dañuy nekk jële Isa ak di leen def ay yàlla weddeeg nag yahood yi dafa jëm ci wàllu nubuwa lu rek la kon bii moo gën a xoyof waaye ànd ak ba muy gën a xoyof yëpp ñoom ñoo gën a bon lu tax ñu gën a bon dañoo jikkoo jikko joo xam ne koo xas jikkoo yaa gën a bon ci nit ñi mooy bëgg a àdduna nit ki bu xasee bëgg a àdduna rek xeeti mbon yëpp ñëw këpp ci kawam moo tax yonentu daan wax ne xubbu dunya su kulli xati'atin bëgg a àdduna mooy bopp mbooleem ñaawte fi moo tax biñ bëggee àdduna rek danga bëgg dund danga bëgg alal danga bëgg daraja da nga bëgg tur te yii bu xasee nekk ci yow mënoo ñàkk xañaan mënoo ñàkk soxor te boo xañaanee ak soxor mënoo ñàkk lekk xal li jàmbur mënoo ñàkk faat bakkan moo tax yowoot nga yëg nga ñàkk yëg boo demee ci téere bu ñuy tuddee jaamiul kabir day la mi yu ma ngi cay wax ne amul benn yahood buy wéet ak jullit ñoom ñaar rek ñi wéet lu dul ba xelam nekk na ci rey ko fu mu gisee alalu jullit xelam ma nga nekk ci sàcc ko wala mu mën koo fëkk bu demee nag mënul laa rey manta yàq sa alal fu mu nan nekk ma nga yàq sa der di la wax wax ju ñaaw loolu kenn mënu cee mucc ñett yi kenn mënu cee mucc ci ab yahood ab yahood ku jaxasoo moom boo wéetee moom bu bëgg laa rey mbaa mu bëgg jël sa alal sàcc ko mbaa mu fëkk ko wala mu yàq sa der wax la wax ju bon kenn mënu ci dara moo tax kon lu yàlla bind yahuud yi ñoo ci gën a xées nasaraan yi nag am na ki ñoo xam ne du ñëpp nag waaye am na ki ñoo xam ne nag bëgg nañ jullit ñi ñu ne sax nasaraan yi xam na ki ñoo xam ne daanaka yahuud yóbbuluñ leen dara diñ namm ci nasaraan yi rek mooy du délégation mooy délégation najaas ba bàyyeekoo woon Éthiopie loolu tamit xisa bu gudd la yonantu dañ ko yónni rek juróomi at ci yonantoom gi daal màkka di sonal ay sahabaam léeg-léeg nga rombam xéeféer mu pes la wala mu xaxtandiku tafli la wala mu saaga la ñu dem a dem a dem ba xajatuñ fa jullit ñi xajatuñ màkka ñu def délégation ñoo ci yontu mu ne muñ leen ñi leen jiitu woon dana am ko ne gëm naa yàlla rek ñu jël si yi ñuy xaree bant kar boppam bi ba ci yaramam ñaari xaaj taxul mu weddi yàlla yéen xéggagu leen foofu dem leen ngeen muñ ñi waxaat ko ko ba mu ñetti yoon mu ne ah solution bi ma gis daal Éthiopie am na buur ba fa ne turam dëgg mooy asxam asxamatu nag mooy atiyatullah may ak yàlla lay tekki ci euh, langu Éthiopie boom de du tooñ te duñ tooñ fa moom ku maandu la ab nasaraan la nag dem leen ngeen gàddaay fa aa ba yonentu joxe ndigal yoon wu njëkk wa fukk ak benn ñoo demoon waaye nag bañ demee ñi dalal leen amuñ benn jafe-jafe ñu luye gaal fay genn wàllu diinaar lañ fay waaye mujj nañ di dem di dem ba mujj mat juróom-ñett fukki góor ak fukki jigéen ba ñu demee nag buuru Éthiopie ba dalal leen yaatal leen lool bañ yëgee seen ak dem nag yooma xéeféeri màkka yi ñu ne njaaxum am na yonentu bi ba ko yàlla yónnee léegi juróomi at diine ji passé na continant asi dem na Afrique xam nga Afrique gaaw naa jot ci diine ñi hebal ñaar ñi gën a mën a wax kii di Walid ibn Mughira kii di Amaara ibn Walid kenn ka tudd Omar ibn al-Aas yi ñu ne leen dem leen ngeen yóbboo ale jéem a nger buur ba mu fexe ba génne leen foofa ne leen kat buñ ko fa bàyyee danañ yàq réewam ma te buñ déggoon la ñuy wax ci yonent yàlla Isaa mu génnee leen ndax nit ku nekk boo ko bëggee pas-pasam ñi ñëw nag commencé nag bëgg a jaxase buur baak wax ju bon buur bi xoolu délégation yonent bi Jaafar moo leen jiite woon mooy seen porte-parole Sayyiduna Usmaan demoon na ak soxnaam Sayyidatuna Ruqiyatu xépp ay ñëwee nag mu laaj Jaafar jaafar ne ko ñun de dañoo nekkoon nit ñu gën a bon ci nit ñi dinaan naan sàngara di sujootal xiram di ko jaamu di sàcc li jàmbur di agressé yàlla baaxeñu yoon ni ki gën a baax ci ci ñun koo xam ne dëgg rek lañ xam ci moom jub rek ragal yàlla rek ñu topp ko ñu ko topp nag def ñu ay noon saaga nañ ñu dóor nañ ñu yàq nañ suñu xalal ba xagi suñ ci dëkk ba moom moo ñu jox ndigal ñu ñëw fii ne yow doo tooñ te duñ tooñ ci yow mu ne seen yonantu booba moom lu wax ci yonantu yàlla Isa mu ne dafa na jaamab yàlla la fekk boobu suratu Maryama wàcc nañ mu jàng ko waskur fil kitaabi Maryama idin tabasa min ahliha makanan sharqiyan ba jazalika Isa bnu qawlul haqq fi fii yamturun buur ba ronqañee commencé sotteeku muy jooy foofa nag la tuubee dugg ci diine ji bind yonantu yàlla Muhammad leetar ne ko boo may jox ndigal ma bàyyi fi sama nguur gi ñëw topp ci sa gannaaw di ànd ak yow ci xare yi soo ma joxee ndigal ma toog loo bëgg rek lay def yonentu bi ne ko comme gëm-gëma loo ma sori sori ku ma jege nga ki ma jege tëgg tëggabun ma lu ma jege jege ku ma sori la toogal foofa nga continuer sa nguur di ci dimbale nit ña fa la nekk saxaaba yu tedd ya mu jigi nag ñi def mu hebal doomam asahar la tuddoon mu ànd ak juróom-ñaar fukki nit ñi war a fa bàyyee ko war a gàddaay si ñëw ma dinatul mun madinatul munawara bañ demee ba ci digg géej gi seen gaal ga suux ñi mujj génn àdduna dee nañ am na sax ñu ne jëkkëri sayyidatuna Ramlatu ca la génnee àdduna ca ñooña am na ñu jàpp ne tamit dëkk baa neexoon mu murtat lu ci mun di am daal Ramlatu bintu Abi Sufyaan amatul jëkkër te baayam a ngi nii moo gën a bañ yonentu yàlla Muhammad ci kaw suuf te yoonutu bëggul kenn ku ko séddoo di wéet mu sànni ko buum ba mu ko sànnee buum buur ba la ko wax buur ba yónni abrahatu mu dem heggale soxna si xibaar bi indi xaaleel na ko kado yu bari mu jël kado ya may ko ca mu ne ko buur bi dafa ne bu ma jël dara ci yow ko damaa kontaan rek ku toll ni gën ji mindeef ku mu sànni buum wallahi soo ma nee sar xolle sar xolle bu fekkee danga noon nga fecc loo ne danga ko def ma kontaan rek léegi nag yonent bi dara jaale lee takk ga najaasiyu la ko jox su ko defee nag moom mu ne ko na tànn kum tànn mu mayal ko ko su ko defee tamit nag najaasiyu la yonent bi tànnoon sallallahu alayhi wa sallama mu huutu ko ca euh, palaasam ba takkal ko sëy bi mu bàyyale ko ko teraanga yu nekk najaasiyu def na ko ca najaasiyu mii nag ndeysaan foofu la nekk ca Éthiopie sonn te gis yonantu ba génn ba génne àdduna yonantu bi tàggee ko saxaabaam yi ñu def ñeenti sàppe mu taxaw ca kanam di leen jilli di di ko di ko jiite nga xam ne kenn du yonantu bi saafiyu ci la bàyyeekoo ne man ngaa jullee néew boo gisut maalik ne xusuusi yonantu bi dong lañ ko jagleel jullil néew boo tiim néew boo tiimut nga ñaanal ko maalik saafiyu ne yonantu bi jullee woon na jaafar at tayaar ba mu génnee àdduna ca xaswatu mutata jullee woon na Sayd ibnu Xaarisata génne mu génnee àdduna Malik ne yàlla moo ko defaloon tayul bu xaabala ñoom ñëpp jàkkaarloo na ak seen koor yi ñun nag comme xamuñu may googa nañ jullee kuñ jàkkaarloo ak kooram kuñ julleekut kuñ kuñ kuñ mënta jàkkaarloo moom ñi bàyyi ko léegi nag najaasi yu tuub na ca la nekk ba génn àdduna waa Makka seen délégation ba ñu yónni woon ñaar ñi nekkoon ca Walid ibnu Amaaratu ibnu Walid tabaarakallaahu ak Omar ibnul Aas yi eseg nañ bañ esegee nag seen mbir yàqu na buur bi toroxal na leen ne leen dara ngeen mënul ci ñi tey maa leen garante kenn du leen laal léegi nag Omar ibnul Aas yi borom pexe la woon mu rëy rëy rëy mu ne ko Ammaaratu yow ku rafet nga te buur yi seen jabar yi ñoo leen xilif del dugg rek ci néeg néegi di néegi jigéenam ñi bu yàggee jigéenam ñi dañ la bëgg ñu la bëggee buur bi bëgg la ñu ngi ko ko ah xamaaratu nag foog na kii li wax dëgg la fekk fexe rek la léegi-léegi mu dugg ci kër buur bi nangam ak nangam dem di dugg ka noona ba benn benn Omar ibn al-Aas ah, dem ca buur ba ne ko xamaaratu mii ab kàccoor la soo ko moytuwut dana def naka su noonu ak sa soxna yi xoolal li dañoo ànd bàyyi koo màkka moo tax kon pexe mañ doon pexeel saxaaba yonent yu mujj këpp ci seen kaw ñoom ñaar ñi ngay pexelante benn guddi rek buur bi génn rek seen amaaratu génnee ci néeg benn soxnaam xéexée ci la ko jàppalu ñi wal awra ja ba biir ba niwi ñi sànni ko ci géej gi toroxal ko fa la doxee moom xal ko moom mooma nag bul fàtte ne maam xalifa waxoon na la ne ba waa abu waa délégation Màkka ba ba mu tàngee moom lañ xommatoon ñëw andil ko euh, abu taalib ne ko nga bañ wéet jëlal xamaaratu ibnu walid te jox na Moustapha xamaaratu ibnu walid barilal Moustapha waaye wa asaawoo dëgg dëgg ñaawal nañ amaaratu moom na ku rafetoon la waaye Omar ibnu Aas tuub dugg ci diine ji kon tamit gis nga ko yàlla ngoog moo yore ak leeram ku ko jox rek nga dem kon nag xisa boobu lay junji ci ah, maanaam noonoo ak yi ak noonoo nasaraan yi moom lay yàlla di wax si nii ne la tajidanna wallaahi da nga fekk yow yonantu bi asada naa si gën caa ta kon nag xisa boobu lay junji ci ah, maanaam noonoo ak yahood yi ak noonoo ak nasaraan yi moom lay yàlla di wax si nii ne la tajidanna wallaahi da nga fekk yow yonantu bi asada naa si gën caa tar ci nit ñi adaawatan ci ñooneel li la si ñeel ña nga xam ne amanoo gëm nañ ñi leen gën a noonoo da fekk leen yahuda ñuy yahud ya wala si naa ñi nga xam ne asrakoo bokkaale nañ nekk ca Makka su ko defee wala taj dan na wallaahi da nga fekk aqrabahum ña gën a jege ke ñoom ma wadatañ cofeel li ñi nga xam ne amanoo gëm nañ allasina moo ñi nga xam ne xaaloo wax nañ innaa naka ñun nasaara ay nasaraat lañ danga fekk de nasaraan yi ñoo gën a jege cofeel ci jullit ñi ci yahud yi zaalika boo gisee nag ñoom ñi gën a jege cofeel ci jullit ñi bi ànd minhum ci sababu naka nekk na ca ñoom xisiisiina ay boroomi xam-xam wa ruhbaanan ak ay làbbe ay muy ay jaamukatu yàlla wa annahum naka ñoom tamit laa yastakbiruun dilu walis topp dëgg buñ ko gisee comme ni yahuud yi di rëyloo walis topp dëgg ak yéeféeri màkka yi lii la ca namu nag suma moo tax mu ne ko wa ida samiu ndéem dégg nañ maa la nga xam ne unsila wàcceef na ko ila rasul jëm ci yontu muy alquran taraa da nga gis ayunuhum seen bët ya tafidu ma ngay bëbbu mi ne damay ci ronqañ mi maa arafoo ngir lañ xam ne la xàq ci dëgg yaquluna ña ngay wax ne rabbana yow suñ borom aman naa ñun de dëggal nañ sa yonantu beeg sa téere bi faktub naa yàlla nga ñu yool maha shahid ña ànd ak way ña su ko defee nag bañ gëmee yahood yi leen saboté yi dañ ñàkk fayda yéen nasaraan yi bàyyi seen diine ji dañuy topp yonent bi dañ leen a gën diine ñoom ñu tont leen maa la naa ana lañ moo nu ñeexal laa nominu ba duñu gëm billaahi ci yàlla wa maa jaana ak la xam ne dikkal nañu mën a xàq ci dëgg muy alquran lu tax ba duñ ko gëm te ñu ngi nii wanan moo dañoo yaakaar an yu du xila naa ba tàbbal ñu rabb naa suñ boram maal qawmi ànd ak nit ñi saalihiina ñu xiw ñu de mooy jullit ñi fa asaabahum yool na leen yàlla bi maa xaaloo sababu li ñu wax wax ju rafet jooju su ne leen yàlla yoo la jinaatin ay tool tajiri yooyu dana daw min taxtihaa ca roon tawl ya al anhaaru sew nda yay ñeent xalmin seen ak déel fiha ci aljana ya wa zalika loolu le jasaawul musnin mooy fay ak way rafetal ña walif naa ña nga xam ne nag kafaroo wédd nañ wa kasaboo ñuy fenloo bi ayat naa suñ kaawteef yi ulaayka yooya gaay asxaabul jahim ñooy mbooloom safara aaya ji boo déggee yàlla wax ko musrikuuna yi maanaam lii tax nit ki bañ a noonu nit ku baax ñaar la xam-xam ak ñàkk rëy waaye boo amul xam-xam man ngaa gëm lu gëmuwut mbaa nga weddi lu gëmuwu musrikuuna yi ñoom amuñ xam-xam toppandoor kat lañ yahood ya tamit amuñ xam-xam ñi ca xam xam-xam tamit dañoo rëy te boo xasee rëy dootoo gisati dëgg looloo tax li yonent bi di nekk dëgg alquran di dëgg seen rëy ga moo leen ko xeeñ ñu ko gis nasaraan yi nag am na ki ñoom ñoo xam ne dañoo woyof te ñoom bëri na ci ñoom ay boromi xam xisiisii na su ko defee kon nag looloo tax yàlla dimbali leen ci leen xisiisiin jamoo xisiisin bu ñuy bàyyi ko ci taqassus mooy toppatu dara ñu ne baat bi baatu ajam la bu ñu araabal loolu lañ wax mi ngi bàyyi ko ci xassa xassa nag bi fathil xaaf moom mooy moom la ñuy wax bu ñu ne xassun mooy boroom xam-xam boo xam ne boroom xam-xam la ci xam-xamu nasaraan yi aalimu nasara su ko defee ba ruhbaanan mooy jamoo rahib mooy koo xam ne dafa dëddu àdduna bàyyi àdduna ak bànnee ya ñoom tamit loola moo leen dimbale waaye aaya ji nag labalut nasaraan yëpp de am na nasaraan yoo xam ne kenn gënu leen a yées waaye mi na ci nasaraan ya defoon délégation ñëw ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñu gàddaayoon ña ba ñu ñëwee ndeysaanam yonantu bi jàng suratu yaasin seen kanam yooy moo tax mun tafiidu min ad-dami maa arafu min al-xaqi ñu ne lii nga wax de ak a niroog la yonantu yàlla Isaa daan ñu doon wax ak la ca tawreet ñoom foofa rek lañ gëme ca saasa moo tax ku baax su gisee lu baax bu ko ko rëy yàqal bu ko ko bëgg àdduna yàqal bu ko ko daraja yàqal ndax bu ko ko yàqalee lam koy yàqalaat ci kanam moo koy xëpp fuuf te du ca mën a génnati kon nag yonentu baa ngoog sallallahu alayhi wa sallama ak délégation bi nga xam ne ñoo bàyyeekoo woon Éthiopie euh, yàlla dogal nag ba ñëw yonentu bi jàngal Quran ñoom tamit ñu tuub ci booba sax mu ngi tombeek juróom-benni at ci gàddaay gi fekk yonentu ba ma ngi ca Xaybar bañ ñëwee wax ko délégation bi bu jógee kon Éthiopie ñëw nañ. mu ne man de damaa xamut ñaar lu ma ciy war a gën a bég fattu gi yàlla may ci xaybar ak délégation bi bàyyi ko Éthiopie ñaar bu ma ci war a gën a bég ci la ndeysaanam soxnaam sa ñëwaale woon saydatuna ramlatu bintu abi sufyaan fekk moom ba muy ñëw tamit ah, xaritam ba abrahatu yónnee woon na ko ay diinaar jox ko ko ne ko joxal ma ko yonantu bi ne ko daal maa ngi jaayanteeg moom gëm naa ko bëgg naa ko lool ñoom nag ba ñu ñëw ndeysaanam najaas yu waajal leen waaj yooyu rafet ñu ñëw Abu Sufyaan nag bañ ne ko sa doom ji kat yonent bi takk na ko ndax duutut kilifa am di boo xasee nekk nekkoo jullit mënoo maye sa doom ji di sa doom ji jullit yow comme yéeféer nga mënatoo koo mayati ab jullit kay moo koy maye waaye moom kay mënatoo koo mayati wala yaj'al Allaahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabiilan la Alquraan waxoon. su ko defee nag bañ ko waxee abi sufyaan ne ko sa doom ja kat yonent bi takk na mu ne eh, ko ku kuy la kenn du njoof ab bakkanam mooy kenn du ko dàq kon nag nga xam ne kon yonent baa ngoog sallallahu alayhi wa sallama ak la ca xew ndeysaanam ñu ñëw nañ nag ànd ak ndeysaanam ñëw ci yonent bi délégation booba nag ñoom ne nañ juróom benn fukki nit lañ woon ñu ñëw nag yonent bi jàng alquran nag ñuy jooy ndeysaanam ngir li ma mi arafu min al xaqi ci alquran wax su ko defee aaye ji tegu ci mu ngi wàcc ci aw nit ci saxaaba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama Usmaan ibn moo leen jiite woon ñoom kat yonent dafa leen a waaroon benn bis seen xol ya tooy xepp xepp xepp ci yàlla matoon nañ fukki nit ñi dajee ci néeg Usmaan ibnu Mas'uud aljumahiyu fekk nag bañ fa dajee yonentu moo leen waaroon ñu jooy jooyu metti ba seen xol ya tooy ca lañ dogu nag ñoom ne dañoo bëgg a làbbewu fukk yooya wax nañ ne aboubacar siddiq ali ibnu abi talib abdullah ibnu mas'ud abdullah omar abou zarin al xafaari saalim mi nga xam ne mooy mawla abi xudayfa ak miqdaad ibnu aswad salmaanul farisi maqal ak usmaan ibnu mas'ud ñoo diisoo ñoom ñi dëppoo daal ne daal dëgg-dëgg daal dañoo bëgg li def ci seen dund bi yëpp dañ koy xoor duñ daggati benn bis guddi yëpp li ci seen dund dañ koy naafila duñ nelawati dootuñ lekkati yàpp ak gerees dootuñ ti seen jigéen ñi dañ leen di fase dootuñ laalati parfum gëtt ba xibaar ba nag siiwee yonantu bi dégg ko yonantu bi sol dàllam ñëw ci soxnaam di seet Cheikh Ousmane fekkut ko fa soxnaam la fa fekk mu ne ko ndax xibaar bi may dégg axaqun ma balagani an sawjika an sawjiki wa ashaabi mu ne ko ndax li ma dégg dëgg la li jógee ko ci sa jëkkër jéeg mbooloo xam ma jabar ja nag ku baax la koo am kersa tañ yar ko bëggut a fenal yonent bi te bëggut a siiwal sekkareeb jëkkër ji mu ne ko su fekkee de yaa ngi ko déggee ci Usmaan dëgg la lii rek la ko wax yonent bi dellu ñibbi bi Usmaan ñëwee soxna sa wax ko ko moom ci boppam mu ñëwal yonent bi ànd ak fukk ñi nga xam ne ñoo nasoon pexe na dañu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ndax yéen yéen a dëppoo ci li ngeen wax yow yonantu bi ñu ne ko waaw waaw ñoo ko wax de waaye wa maa aradna ilal xayra xiw dong lañ ci namu bëgguñ dara xiw rek lañ ci namu yonantu ne xam leen ne seen bakkan yi dañoo am xàq ci yéen inna li anfusikum alaykum xaqan fa suumu wa aftiru wa quumu wa naamu kon nag seen bakkan dafa am ci yéen xàq de leen xor di dog de leen nelaw di xeewu man mii danaay naafila waaye danaay nelaw danaa woor danaa dog danaa lekk yàpp ak graisse damaa yore ay soxna fa man raqiba an sunnati fa laysa nii sama sunna si ku ko sib bokkoo ci man raqiba saa yu jalgatee xan rek sib lay firi bu jalgatee fii rek xemem lay firi su ko defee nag mu dajale leen ca nit ña gannaaw ba mu waxee ñoom ba pare la leen yóbbu ca nit ñi ñëpp dajee yonent bi def ab discours ne waaye maa baalu aqwaamin xaramu wa taama wa tiiba wa shahawaati dunya wa inni lastu an takunu qissisiina wa ruhbaanan fa innahu fi diini tarku laxmi wa nisaai wala itixaasu sawaamici wa inna siyaaxata wa ruhbaaniyatihim alji mbirow xaraamal ci seen bopp soxna yéeg lekk yeeg gëtt bànneex bànneexu àdduna bi wallahi digaluma leen ko diguma leen ngeen nekk ay xisiisi naaka ak ay ruhbaan de sama diine ji yàlla yónni ma te yàllaa ko moom jox ma ko ne naa ko wattu jotale ko bàyyi lekk yàpp bokkut ci bàyyi jigéen ba ñu sëy ak ñoom bokkut ci jàpp ay sawaameex tamit bokkut ci sama touriste ak ak ak làbbewu bokkut ci maa ngi leen xamal ne maanaam siyaaxatu sama xeet wi ak seen ak làbbe wu mooy jihaad jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara xaj leen umra leen julli leen joxe leen asaka xoor leen weeru koor jubal leen yàlla jubal seeni mbir ñi xalagoon ña leen jiitu woon kat mooy tasdiid mooy tatal dañoo tataloon ci seen bopp yàlla tatal ci ñoom rek mënuñ ko su ko defee xal ko ñi leen wuutu timit ñëw ñu tabax ay sawaam yu kenn xamut ba yàqule ca kon diina jàngoo la yàlla wax yonantu mu andil ko xeet wi keroog nag aaya ji nag yàlla wàccee ko ci ñoom xam ne liñ bëgg baaxut li yàlla daganal kenn du ko xaraamal sa bopp moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina yéen gaay nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla laa tuharrimu bu leen xaraamal tayyibaati maa way tey la nga xam ne ahla daganal na ko laahu yàlla kum ñaan leen soxna yeeg lekk yu neex yëpp yàlla fa ko daganal bu leen ko xaraamal seen bopp wala taatadoo bu leen jalgati inna allaha naka yàlla laa yuxibu du yool muxtadina way jalgati ña wa kulloo lekk leen mimma rasaqakumullaahu ci leen ci nga xam ne wërsëgal na leen ko yàlla xalaalan mbir mu muy aji dagan tayiban di aji teey wattaqoo na ngeen ragal laaha yàlla allati yàlla ma nga xam ne antum yéen moom ñu ne way gëm ngeen bii ci moom gëm leen yàlla te bàyyi caaxaan yi dem leen di tëeg soxna yi de leen naan soow mi di lekk ci yàpp yi naan ci boisson yi lekk gu leen du yàqal jaamu yàlla waaye bu leen jaamu yàlla jaamu yàlla gu leen di yàqal lekk ak bu leen yàqal ci seen yii nii kon yooyu jar aaya ji tofu ci mi ngi wàcc dañoo tawatoon yonantu bi ci seen ngëñ yi nga toog rek wax ak nit ay wallaahi nangam wallaahi nangam fekk yow sa wallaahi jooju ngay wax sax bàyyiwoo ca xel fasoo ko ci sa xol su boobaa yàlla ne loolu topp ma leen ca dara moo tax euh, loolu loolu la ko imaamu Shaafi'i yu déggee mooy rek di gëñ nii rek di wallaay wallaay yu dul jeex te fekk loolu nga wax sa làmmeñ sa xol bi fasu ko mooy luy jiitu ci ne fekk kenn sa xol fasu ko bi xas di tabarru rek loolu masabu Shaafi'i amaa Maalik nag ak Abu Hanifa laxu moom niñ ko déggee. mooy ju jaawale wala juum ngaa gis nit wala nga gis ab oto ci waxin mu niroo la ak oto Modou Cissé bi lool nga gëñ ne oto bi oto Modou Cissé la wala nga ne kee di ñëw Modou Cissé la yàlla dogal mu ñëw xuuteeg moom loola yàlla jéggal na la ko toppul la ca ndax yow loolu nga foogoon waaye loolu nag la Maalik gëm ak Abu Hanifa waaye bu duhut ci fase boo ko gëñee ci fase dañ koy validé ak noo ko mën a gëñee yàqam su fekkoon da nga koo waxoon ne ko wallaay bu dul moo di si sama jabar ci fase wu na mu ñëw du moom fase ma tàbbi na ngëñ yooya bu ca xàq jàmbur xaju yàlla jégal ko bu ca xàq jàmbur xajee nag dañ ko cay xaj kon lax woo ngóog ca Maalik ak Abu Hanifa moo tax Maalik ngëñ yi ñeent la ko def ñaar ya duñ ko kafaara ñaar ya dañ koy kafaara ngëñ yi nga xam ne duñ ko kafaara mooy gën ci ay fen kooku sax xamuus eh, lañ koy tuddee ngëñal xamuus dafay nural borom safara borom dafa war a tuub gëñ fekk da ngay fen rek bëgg a lekk xal li jàmbur mbaa nga bëgg bëgg a yëkk ci daraja kon képp kuy gën ci sikk mbaa ci fen dafa xam bàkkaar ba bàkkaar ba dafa rëy ba kenn du ko kafaara loo ngëñ mais dañ ko wax ne ko demal nga tuub ku ñaareel ki mooy laxu bi ngëñ ci njuumte li nga juum xuuteeg li nga yaakaaroon te xaqi kenn xajoo ci xaqi dara jéggal nañ la ko jërut kafaara beneen bi nag mooy euh, maanaam birru walla wala xinsu mooy da ngaa da ngaa gëñ ne wallaahi dinaa dem tey marché te waxoo incha allahu faroo marché tañu nga wala nga gëñ ne billaahi dem marché far yàlla dogal nga dem marché su boobaa tamit tañu nga jeex na kon ñaar dañ la ni kafaara léegi nag nga ñëwaat ya ca yàlla jàpp ñu war koo kafaara ak buñ koy kafaara luñ koy kafaaraye moom lay jàngale si nii moo tax mu ne laa yuwaaqisukum du jàppee leen laahu yàlla bi laxwi ci njuumte boo xamee dafa nekk fii ay aymaanikum seen ngëñ yi walakin li fi nekk yuwaaqisu na jàppee leen bi maa xaqattum ci li ngeen fas ci ngëñ li ngeen fasee al aymaana ngëñ yi fa kafaaratuhu kafaara ngëñ loola nag bu ngeen tañoo itaamu ashrati masakina mooy lexel fukki miskin kenn ko ne nga jox ko mut ci lan mu ne min awsati ma tut'imuna ci li gën diggu dóomu ci loo xam ne da ngeen lekk ko da ngeen lexle ko li gën a diggu dóomu ci li ngeen di lexal ahlikum seen ñoñ ya su fekkee ceeb ngay dundee joxe ko ca buy dugub ngay dundee joxe ko ca buy mboq ngay dundee joxe ko ca aw kiswatu mbaa seen ak koddu wala bu ñuy góor kenn ko ne nga wutal ko xaftaan ak ak kaala bu ñuy jigéen nga wutal leen robb yu jot lépp nëbbu yaatu fatt ba xarxaram ba rekk di feeñ ak ca ténq ya wala aw tahriir wala goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla la te nekkut gaam jaam boo xam ne moomee la kenn nekkut ca benn pet gorewut ca moom fa in lam su fekkee amut ci yi ma wax kenn fa siyaamu salaasati ayaamin war na ko xoor ñetti fan bu ko toftalee moo gën bu ko teqalee dara nekkut ca zaalika loolu ma tudd kafaaratu aymaanikum mooy kafaaraak seen ngëñ li idaa xalaftum ndéem ngëñ ngeen ta ngeen tañu wax fasoo na ngeen wattu aymaanakum seen ngëñ yi bu leen ko di foyee dee leen gëñ ci lu jar a gëñ gëñ ci wallahi danaa def nangam mu nekk lu baax wala gëñ ci danaa defar diggante diw ak diw dañoo yàqoo loola yépp mooy li baax kazaalika naka leen yu bañ lay birale la laahu yàlla lakkum ñaan leen aayaati aayaam yi laa lakkum basta la yéen taskuruuna ngeen sant yàlla de dafa xasaf ma fool ma taskuruuna hoo la woon kon ngëñ a ngëñ ba tey des na ñaari point soo gëñee ci lu bon danaa gëñ danaa naan sàngara gëñ dana njaalo waaye waaye bu ko def bu ko def de te du kafaara soo gëñee muy lu baax lu baax a ngi nii nga gëñ na du ko defati diw sa xarit la wala nit la sax sa mbokk la nga gëñ na dootuma waxee ak moom da ngaa ko dagg dootuma ko dimbaleeti waaye waaye demal nga kafaara la te nga dimbale ko yàlla bëggut kuy jël gëñ di ko def baaraas mu tere laa def lu baax moo daloon Seydina Usmaan ca Mistah ba mu gëñoon ko dimbaleeti wax waxam yooya yëpp yontu dafa nekkoon kafaara sa ngëñ te nga dimbale ko wala ya'tali ulul qurba minkum wa saati an yuta ulul qurba wala ya'tali kon ulul fadli minkum wa saati an yu'taw ulul qurba wal masaakin wal muhaajiriina fi sabiilillah wal ya'fu wal yasfahu kon loolu lu jar a bàyyi xel la waaye ñoo nga naa ko de dootuma ko naa ko yëfi caaxaan la su fekkee la nga gëñ def koo gën demal nga kafaara sa gëñ la ta nga dem defi ko su fekkee li nga gëñ ñàkk koo def ak bu ko def mu jeex rek wax jeex waaye damaa naan gëñ naan danaa naan sàngara gëñ naa ko danaa naan waxi caaxaan la kenn waru koo def ku gëñ lu xaraam bu ko def kon gëñ a yàlla bëggul kuy fooyee ngëñ moo tax Malick ne ku gëñ ci fase dañ laa war a yar fase kenn waru cee gëñ ku gëñ ci goreel goreel loo ci gëñ sa jaam la yaa ko mu ne ko goreel naa la jeex na waaye toog naan gëñ naan naa goreel sama jaam bi matu ko sa jabar gi yaa ko moom sa buum ngi yow la ko yàlla jox waaye waaye booy fase fase rek jërut gëñ su boobaa tamit nag kon faara yaa ngoo lexal leen fukki miskin wala nga woddu leen wala nga woor wala nga woor ñetti fan wala nga goreel jaam ñeent yi boo ci def rek baax na aaya ji tofu ci mu ngi wax ci sàngara sàngara ak mbonam ga bii nag mooy ñeenteeli aaya bu wàcc ci sàngara wàcc goo xam ne dafay wane mbon ak sàngara ak xaraam ak sàngara ba péncam yàlla dootul daganati fekk na nag mos naa wax sàngara di ñu ca ñaax waxaat sàngara ne njëriñang ci ci waxin waaye mooy mbay ga rek ak jaay ga waaye duhun naan ga ca raisin baagee ca xaju Seyduna Omar waxaat sàngara bu leen ko jege fekk yéen a ngi ci julli laa taqrabu salaata wa antum sukaara waaye aaya ji muy inamal xamru wal maysir wal ansaabu nag moom moom nag moo ko leeral piir ba péncam yàlla du daganati wax na ca wax ju leer naññi joo xam ne jeex na tàkk wax amatu ca amatu ca commentaire ati moom nag ba mu koy xaraamal ak yim ko boole rek mu lay xamal mbon ma boole nag sàngara ak karta ñoom ñaar ñii mu boole leen tamit ak samp ay xiram di leen jaamu boole leen tamit bant yooya ma waxoon la amara nii rab bi nahaa nii nangam te kenn diggalul la ko bant yooyu tamit kon nga xam ne kon ñaar yoo xam ne kéeféer la la booleeg ñaar yoo xam ne boo ko bàyyiwul mën laa dugal safara ansaab kéeféer la ba tey tamit maanaam aslaam kufru la dem di seetlu kat yeeg nangam ak nangam ak ñuy ne baatare nan la sa wërsëg wi lii ak da nga dee ak li lay pexeel ak jigéen gu taxaw geeg gu xees geego yonantu nee na ku leen dikkal lañu wax nga gëm ko rek li ma di woon weddi nga ko. soo ko gëmul nag waaye dem nga ci rek ñeent fukki fan loo julli yàlla du ko nangu kon ñaar yu bon yi lu ko yàlla peer bon na mu peerale nag karta peerale kook sàngara karta nag feeg mi nga xam ñuy karta ñuy teg xam ñu perte rek karta la karta ak naan yi bëri léegi karta ak naan teg tegi dana dem ba ci téléphone yi ci cerveau yi teg xaram tabaski ku xootee tabaarakallaahu xaram tabaski mi nga tombeek nangam yaa ko gañe te man xoote naa gañewuma suñ crédit yëpp lañ boole kay lekk ko jox la ko karta la di waaye karta ak nandite la bii màkk teg nañ ko ku nangam ak nangam yaa gañe billet bi te nañu gañ ñu xoote ñoo xam ne gañewuñu yaa yaa ko karta yaa ko la teg nañ oto bi mbaa jakarta bi ku xoote def nangam yaa ko gañe ñenn ñi xoote nañ gañewuñ ko yaa karta karta gi yaa ko yaa tebbi karta gi perte nag ak nuñ ko mën a tuddee rek feeg mi ngi xam ñuy xam xam ñuy perte te ña xam xam nañ luñ def ba xam ña perte xam nañ luñ def te perte nañ rek kooka karta la ak nuñ ko mën a tuddee karta gi nag dafa bëri lool ba boo leen doon lim doo fi fi doo ko doo ko mën a jeexal waaw waaw kon karta yi dafa bëri sàngara tamit noonu la mel lépp loo xam ne bu ko nit ki naanee màndi rek wala mu tuux ko màndi wala ñu pikir ko ko mu màndi wala mu fóon ko màndi rek sàngara mu jeex kon loola moo tënk sàngara rek lépp lu jaxase xel rek loola sàngara la sàngara nag lu xaraam la yàlla ak boppam rëbb na ci sàngara ci waxi ci làmmiñu yonentu yàlla muhammad fukki nit sàngara yàlla rëbb na ca ka koy naan ka koy naanlu ka koy nal ka koy lu kañ ko nalal oto bañ ko sëf nga xam ne lii sàngara la nga transporté ko yóbbu ko yëpp ci biir rëbbam yàlla mi ci ngeen bokk su ko defee kon nag sàngaraangook ak karta yàlla nag dafa ñuy wax yu bon ya ca nekk bañ teg ci suñ bët mu door a wax nag ne bàyyi leen ko waaye tey lim ko peralee rek doyoon naa doyoon naa doyoon naa tax ngeen xam ne war naa ba yàllaam lëmm bu ne fajta nii boo baleen war nañoo ba yàllaam lëmm bu ne la'allakum tuflihun te muy taxqiq su ngeen ko ba da ngeen texe yàllaam lëmm bu ne seytaane mi leen koy defloo dafa leen bëgg a tàbbal ak ñooneel gisoo tey ñay naan buñ naan agun ñëpp a ànd man naa laa jëndal sax nga naan ñi xaritoo waaye buñ xasee màndi ñëpp noonoo commencé rayante saagaante ñay waaye bu gañe xasee xam rek kii gañe sa kër gi gañe sa fukki millions yi rek noonu commencé na am noonu ga dana dem sax ba seen doom ya bokk ca boo xasee man màndi dootoo tuddati yàlla dootoo julleeti kon yëpp dafay tegtale maanaam mbon ak sàngara ak lépp loo xam ne ni maanaam aju na ci kon nañ bàyyi sàngara tey nag réewi jullit ñëpp foo ca dem ni ngay jaay sàngara te la ci gën a métti gën a bon doomi jullit ñi rekk ñoo koy naan kenn xamut fuñ jëm kenn xamut tamit lan lañ karta doo dem tey réewu jullit ñi rek kartaan fa ne xuus ma ñàpp mel ni ay bitigi naar te foo ca dem nit ñaa ngay rang di xooli ay programme set bee ma daane huit baa ma nàngam yow bi nga daanoo yàgg na yow kay ba nga demee jënd karta ga rek nga daanoo woon kon yooyu yëpp musiba la moo tax sama borom ne yaa ayyuhal lazina ee eh yéen gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu alquran innamal xamru daal naka sàngara te mooy lépp luy màndal xel wal maysiroo karta te mooy lépp loo xam ne am na teg am ñu gañe am ñu perte wal ansaabu ak xërëm yi wal aslaamu ak bant yi nga xam ne moom la ñuy seetee muy amara nii rabbi nahaa nii yi la yëpp rijjisun sobe la yii la yëpp min amali seytaan dafa bokk ci jëfi seytaan moo leen koy rafetal yii yëpp bu ngeen bëggee texe fajtani boobu teet leen sobe yii nga xam ne moom la ñeent yi làmboo laxallakum mbastale yéen tuflihoon a ngeen texe inna maa yuriidu daal dafa namu seytaanu seytaane an yuqa mu tàbbal baynakum seen diggante al adaawata ak nooneel wal baxdaa ak ak mbañeel fil xamri ci mbiram sàngara wal maysire karta ndax ñoo ko gën a mën a joxe buñ kartoo gun mën nañoo juboo buñ naana gun mën nañoo juboo bay jëndalante waaye buñ xasee naan mbaa ñi xas gañe rek onoo xas dugg seen diggante wa yasuddukum dana moom karta ak ak sàngara an fikirlaay walis tudd yàlla wa ani salaat ak walis julli ndax moo ci gën a màgg antum ndax yéen mun taxu na way datal ngeen moo ndax bàyyi ngeen rek yàlla ne ki kenn du yàlla xam nga istifham la waaye istifham ji dafa xamee maanaam amar dafa xamee maanaam digle dafa mën a xam dafa xamee maanaam intahu baleen waaye nag istifhaam ji amee maanaam amar moo hëpp balaaxa amar ji bu ñëwoon rek ne baleen xam nga tey sa yow mi borom kër boo wooyee sa doom ne ko gis naa la ngay tux cigarette te xamoo ne cigarette xat mi jot dana rey juróom mbenn million ci ay nit gis naa la ngay tux cigarette xanaa xamoo cigarette benn galan boo tux wàññi na ci sa dund bi fukki minute ak juróom-ñaar gis naa la ngay tux cigarette xanaa xamoo cigarette day joxe cancer xanaa gis naa la ngay tux cigarette dafay waral xasaw xasaw ak gémmañ ak loxo yu ñuul waaw ndax doo ko bax waaye mooy ba ko rek loolu la bëgg a wax waxin la woo xamee ne nii moo gën a am balaaka bu ko waxoon ba pare ne baleen ko déedéet bokkuñ duñ benn moo tax la boroom xam-xam yu sàggan ya nga xam ne am nañ xam-xam waaye amuñ leer naan yàlla ci boppam de dafa ñoo wax sàngaraag mbon ya ca nekk ba mu demee ba muy jeex mu ne fa hal antum na ndax ba mu noppi ñu noppi waxut waxuñu fa wax joxem waxi caaxaan la fa hal antum muntahuna tekki hun ndax ba ngeen dafay tekki ne baleen loolu lay tekki istifhaam joo xam ne dafa amee maanaam amar la moo gën a xam balaaka ci xaraamal moo gën a xam balaaka intahoo de kon nag wax jàngoog na ko nit ña déggee woon ñu bëree bari naan faalaanta munta woon a mooy ndax ba ngeen tekkiwul loolu baleen lay tekki kon noonu ma misaal lee li ci xajoo ngoog sàngara ngoog karta ngoog dem ci bu xaabakat yi di seetloo ngoog waaw buñ la seetli ne sa wërsëg wi jeex na loo ca man buñ la seetli ne ren ngay dee loo ca man konte ngaa doy yàlla rek la mi la nëbbu sa dee de ko fuuglu rek bët bu set nga ne tey lay ñëw rek nekk ci li nga war a ne bàyyi li nga war a bàyyi yàlla mi la nëbbu sa wërsëg wi del fàggu rek bët bu set nga ne tey laay xam taxat xut moo yàgg waaye xam yàggut waaye dem ci bu xaabakat yi mu taxaw pettaaw ya tasaare carte mariage ya te dëdd ca suusa xool ca ndox ma yooyu yëpp dafa xaraam nañ ci bàyyi xel dañ ko miin eh, bu xaaba yi nag dafa mel ni ci ji jamono bu xaaba yi moo xew ñi nekk ci télé yi ñi nekk ci rajo yi kàcc rek yow mi ñàkk fayda tamit nag di jël seen numéro yi ñuy joxe defal seen bopp promotion waaye dama ne njariñ du wër forage ne kap ndox ne ko am fula la ñee koy fekki de teel njariñ la nit ñee koy fekki naaf njariñ la nit ñee koy fekki naka noonu entreprise njariñ la nit ñee koy fekki waaye entreprise boo xam ne yow yaa koy gàdd mu nekk cartable fu ne nga yóbbu ko danga ngaa da dafa dafa doon njariñ rek moo tax kon yeewu leen bàyyi seen xel ci buxaaba yi kàcc rek ak fen ak lekkaal lu jàmbur rek tappale rek ci lañ nekk kon nag aaya ji tegu ci yàlla ngay continuer di wax ba mu ne faal antum muntahun a Omar ku dégg balaa xala xam na ne intahoo rek lay tekki moo tax mu ne yaa rabbi intahay naa ba nañ yow yàlla mu jeex tàkk yàlla ne wa atiyoo na ngeen topp laaxa yàlla wa atiyo ngeen topp ar rasula yonentu yàlla muhammad mi ngeen xam waxzuru na ngeen moytu mbooleem mooy yi fa in tawalaytum su fekkee dëddu ngeen walis topp yàlla faalamoo xam leen ne anna maa ala naa déet di war suñu yonentu yi balaa xulu dul jotal almubinu gay aji biir su ko defee nag yàlla jotal moo war ci yonentu yi laysa ala lazina aaya ji mi ngi wàkki ci di sàngara xaraamee xam na ñoo xam ne ay jullit lañ te yëguñu woon woon xaraam nga ñu continuer naan dañ koy yëg ak yàgg na ndax booba téléphone amut message santé amut télévision amut rajo amut te jullit ñi tasaaroo nañ ci àdduna bi yëpp dana xibaar dana xew ren déwén nga koy door a yëg xam ñoo xam ne tamit xaraam nañ waaye yëguñu ko ña di naan ba far dee jullit ñi nag tiis lu lool ne waa suñ mbokk ya xas dee ci naan sàngara doon naan avant muy xaraam bañ dee ak ñi nga xam ne naanaat nañ te yëgaguñ ko wala naanaat nañ gannaaw si nga dee te yëgu door di ko yëg fu mu jëm yàlla ne ba ma la gut ku ko jëfandikoo doo ci jëlee benn bàkkaar ba ma xaraamal gut ku karta amoo ca benn bàkkaar ma xaraamal gut naan sàngara ku naan amoo ca benn bàkkaar ba ma ko xaraamalee ku ko yëgagut ba nekk ca dee amoo ca benn bàkkaar loolu lay wax si ne kon yàlla ku bari yërmandi la moo tax na kon. bi eh, eh, aaya ja ndeysaanam wàccee nag eh, saxaaba yi ndeysaanam ca madinatul munawara ña nga xamoon seen daan sana ngi sàngara ya ci lañ commencé di ko tuur madinatul munawara niin ay xati lëmm su tawee da nga gis niinaayu niinaayu niinaayu sàngara bi ngay tekki ne saxaaba yi dañoo baax saa yu leen dëgg dabee rek ñi taxaw loolu mooy mbaax kon gis nga ba sàngara xaraamee ña deseloon sax dañoo tuur seen sàngara sax waaye doo fi nekk ñu ne sàngara xaraam na nga ne may naan butéel ba mu jeex ma door a bàyyi cigarette xaraam na nga ne may mottali paquet bi naroo bàyyi sama lam bi nga takk dafa xaraam nga ne su ma génnee tekki ko naroo koo tekki buñ la xaraam dabee rek ca ngay taxaw loolu mooy jullit pire te ba mu leen dabee rek ca lañ bàyyi gis nga a tamit bi mu xaraamee ak riba am na ñu ca leble woon bañ ca leblee ñu ne ah kon kat nañ fayee ko ba pare door a appliqué yaa ayyuhaa ittaqullaaha wa zaruu maa baqiya mina ribaa in kuntum mu'miniin fa in lam taf'aluu nag fa'zanuu bi harbin minallaahi wa rasuulihi man ngeen a fayeeku seen bopp alal ya te bàyyi riba bala ca tegu woon kon yow ñu may déglu boo déggee ne riba dafa xaraam te yaa ngi leble woon ci nangam ca banque baag ya ca aju jëlal sa bopp alal ja bàyyi intérêt ba intérêt ba bu leen ko bàyyee nag mën nga koo jël nga jaamu ci yàlla mais bu ci topp yàlla jaamu yàlla ci jaamam yi c'est que ku nga jox ko ko kuy ngoro ngoro ga mbaa muy nar a ngénte xamut xar ak yu mel noona nga nga jox leen ko rek ñu dimbali ko waaye bu ca saraxe bu ca tabax sa kër gi bu ca jënd oto bu ca jënd yére ndax loolu topp yàlla la waaye nag da nga cay jaamu yàlla waaye bu leen ko bàyyi bu leen ko bàyyi da nga leen yokk doole loolu imaamu xardaa yuy wax xardaa yu loolu la wax yàlla nag ne laysa ala alladina dee di war ñi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran wa amiloo ñuy jëfee saalihaati farataaki naafila yi dee leen junnaaxun bakkaar fii maa taximoo ca lañ doon jëfandikoo ci sàngara ak ci karta xaalis bañ ca lekk ak lañ naanoon dara togguñ leen ci isa mattaqaw ndem teet nañuy xaraam yépp wa amanoo ñi gëm wa amanoo ñi sax ci ngëm wa amiloo ñi sax ci jëf saalihaat ci jëf ju baax ji su mattaqaw topp ñu teet maanaam eh, mbooleem yu yi wa ñi sax ci ngëm su ma taqaw topp ñu continué teet maanaam yi nga xam ne sax dafa dagan ngir bañ a dugg ci yu xaraam wa axsanu ñu rafetal wallaahu yàlla yuhibu dana mu yool mos ni na way rafetal ñi de kon gis nga ko aaya ji dafa wane ñaar ñetti maqaamaay diine yi rek diine ñetti maqaama am na imaan am na islaam am na ixsaan amano su ma taqaw mooy ragal yàlla ci maqaamaab islaam amanoo suma taqaw ju ñaareel ji suma isa wa amanoo suma taqaw ju ñaareel ji kooku mooy ragal yàlla ci maqaamaab imaan amanoo wa amanoo suma taqaw ju ñetteel ji moo tax mu tafal ci wa mooy maqaam mooy ragal yàlla ci maqaamaab ixsaan foofa la mbir ma yam nag an taxbudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ñetti yooyu tax mu indi ittaqaw ñetti yoon indi baatab amanoo ñetti yoon mu mën a mu maanaam ñu mu tolloo ñetti maqaamaay diine yi islaam iman ihsaan nga xam ne islaam iman pas-pas la islaam pratique li nga pas la li nga fas la moo tax foo jàngee alquran ba alquran jeex amano wa amilu salaat ñooy ànd gëm naa ko jëfee woo jot dara li nga gëm da ko war a jëfe waaye nag moom ihsaan moom takkayuuf la ak melokaanoo la li nga gëm di ko jëfee nga rafetal ko rafetal gu bay ni mu ngi mel ni yaa ngi jàkkaarloo ki la ko sant wala mu mel ni yow ki la ko sant yaa ngi mu ngi jàkkaarloog yow kooku nag muy muraqabatul kubra ak muraqabatu suxra fa la mbir ma yem nag